cosaani Sénégambia di xalaati rajo Sénégal ak rajo Gambia ñu di leen ko digtal talaata bu nekk ci waxtu bi. sunu mbokk yi Sénégambia ñu ngi leen di nuyu di leen dellu sargal ci sunu waxtaan ni ngeen ñoo déggee talaata bu nekk ci waxtu wi. ñu ngi leen mujj a digtal waxtaan bu Doudou Diego Diop defoon ak Hadji Demba Lamine Diouf waxtaan yi indi ko fii ci rajo bi di Thiam Diouf ba mu demee Sénégal fekk fa Ibrahima Mbeng ak Alioune Cissé ak ñi ngi leen ñee liggéey ak moom dimbali leen ci seenub liggéey ba ñu del siyaat ci réew mi moom Thiam Diouf mu ngi àndoon ak Cheikhou Diallo ba liggéey bi dox sunu waxtaan ak Demba Lamine Diouf bi ko Doudou Diego Diop laajee cosaani Sénégambia fa mu cosaanoo ca wàlli buur ya ña ko dëkkee woon li nga xam ne moo dellu takkali réew yi ba fa mu ca em waxtaan wa jeex ñu dellu tànn keneen it koo xam ne kii miin ngeen baatam bu baax ci rajo Sénégal Doudou Diego Diop dellu di waxtaan ak moom kooku moo di góor gi ma kurambu laaj na ko li mu xam ci cosaani Sénégambia ci ban fànn la ci fànnawoo moom ma kurambuub mu nettali ko bon nag li ñoo def rek moo di bàyyi Doudou Diego Diop mu dal di laaj góor gi Macoura Mboup li mu xam ci cosaani Sénégambia Doudou Diego Macoura Mboup li ñu lay jëkk laaj mooy nga wax ñu cene ba lu ko waral ak seen diine ji fu ñu ko jële
alhamdulilah Doudou Diop Diego am nañu kontante ci li nga xam ne moom nga nu jëkka jëkkal laaj ndax wolof yi dañoo wax ni nit boo koy laaj laaj ko la mu xam mbaa la mu defee ne xam na ko da cee sawar ndax nit ku ne dangaa am loo gën a séddoo leneen looy jàngi nag su fekkee ne mën ngaa bind danga koy jàngi ba xam ko waaye fa nga dëkk ak fa nga yaroo la nga fay xam ñépp dina yaakaar ni lu wér lay nekk kooku sax wolof yi léebu nañu ko léebu am maanaa la ndax dañoo wax ne nit ku ne famu na fa fu muwul bu mu fa mukk fu muwul bu faa lu ñu ko fa bu mu ko moo ko Cenaba dëkkub diine la boo xam ne bii dëkk bu rëy la boo xam ne dëkk bu rëy ci Sénégal la li tax ñu naa Cenaba nag wolof yee ko tudde noonu waaye nag du Cenaba place la woon rekk bu ñu daa liggéeyee ka nga xam ne moo fa daa liggéeyee na mu tudd kooku jigéen la ñu naa ko soxna Senaba Saar kooku mu ngi dëkk dëkk bu ñuy wax tëgg ndoge ci fu ñu naa Kajoor ci wetu Kébémer soxna soosu nag dafa amoon benn guy bu mu daa suubee di fa rangale ay mbàndam bu bëccëgee mu ñibbi këram bàyyi fa mbànd ya ba yàlla àtte mbànd ya mu di ko lijjanti ba mbànd yépp jeex fa yàlla atti guy ga lakk bés daanu am na benn sërif bu ñu naa sërif sekk wala fi ñoo ko sant sekk ma nga bàyyi ko ci gànnaar di ñëw ci biir kajoor ci côté boobu di fa toog ba yàgg mu dikk sañ ci fa guy ga tudde ko na guy senaba saar kooku moo di sërif sekk kooku moo am doom bu ñu naa ma seer sekk ma seer moomu ne fa bi nga xamee ne amari ngooñu ndaag mi ngeen di dégg ne xeexoon na ci Samba Sadio ci 1875 kooku moo jóg bàyyi ko ci Kajoor bàyyi benn doom bu góor bu ñuy wax Mamadou Aminata continuer fekki benn tukkuloor ci Wuramaadiyu bu ñuy wax Seexu Amadu Maadiyu bi yàlla atee amari ngooy ndax delsi fekk maamam jooji ñuy wax sërit sañ ci dëkkam boobu tudde ko guy Senaba Saar Senaba Saar mu ngi dëkkoon ci dëkk bu ñu naa tëgg ndoge fa la amari ngooy ndaag jóge ànd ak amadu seexu ñu jóg ngir yàlla di xeex ngir yàlla dëkk bu ñu dugg diina ja ëpp fa doole ñu ànd ak moom ne ca la mu nekk di diini bi nga xamee ne kooku Cenaba am nañu tuddee ko Cenaba Sarr la soog a ñëw fii ci Bawol lu ko waral nag ba nga xamee ne seexu xeex na ci Samba Sadio ba Samba Sadio jeex te Amari Ngooñi Ndaag mi nga xam ne moom laa tudd léegi bàyyi ko ci xare bi tasaatoo mook ay bokkam ak ñoo xam ne it ay tukkulóor lañu yoo xam ne ñoo ko seexoo bokk bàyyi Amari Ngooy Ndaag ne xare bi jeex na te Bara ci la nekkoon Jibril Mahadi ci la nekkoon Alfa Isaa ci la nekkoon Alfa Saada ci la nekkoon Seydil Moxtaar ci la nekkoon Abdurahman ci la nekkoon Abdul Jalil ci la nekkoon Majal Noor Jóob ci la nekkoon tafsir xayaar jóob ci la nekkoon demba dokko ci la nekkoon alfa suleymaan jaañ ci la nekkoon jibril mi nga xam ne it moo ko seexoo baak bàyyi ci la nekkoon maajo faali ci la nekkoon daawur bira mbay ci la nekkoon ak baabu kebe ñoom ñépp ay gawar lañu woon ak kuy naa sëriñ ngay ak jibril saaxo ñooy ñépp ay xañey xare lañu woon bi nga xamee ne xare bi jeex na man amari ngoy ndax yàlla sama borom sawe na ma e dinaa seet foo xam ne fii fa laay war a dëkk waaye nag duma génn kat biir réew mi ci réew mi laay nekk yàlla jeexal na xare bi yàlla sama borom musal na ma dinaa ànd ak samay gor dem saalum ndax saalum ci réew mi la ba mu demee saalum it dem na ripp ci kuñ naa biraan siise toog na fa ñaari at ci fu ñu naa tàgg wari neew fa la walbatikoo moom amari ngooye ndaag ànd ak ay gawar yu bari yoo xam ne yii ay taalibeem la ñu woon ndax bi xeex bi jeexee dañu ko toppan ne ko foo dëkk la ñu dëkk ba mu tourné mu ñëw dëkk bu ñuy wax pir pir googu nag yaari pir la pir sañu xóor ak pir gii nga xam ne ci la fi ci biir xaali mar Fall yaari pir la pir gi mu nekkoon fi la soxna Penda Fall nekkoon foofu la Amari Ngooy Ndaag nekk fekk fa sëriñ pir boobu nuyoog moom toog na fa ñaari at ñoo xam ne ñii moom lañ jox jàkka je moom amari ngoñi ndaag mu di ko jiite ba yàgg mu jóge fa nag ne am na de fu ma bëgg a sañ su ma fa sañcee dippee ko sama dëkk balee ma tuddoon muy sena ba ba mu fa jógee dafa rëpptal wut si mbaaw gii ci léegu yi ndax ma sekk ñooy mbaaw maam la ba mu rëpptalee fa sax mu ñu naa waandu ñu ne ko waandu lu mu wund mu ne mooy rëb woowu nga xam ne boo ko teree garab gii ne ko doo fanaan ci garab day jàll ci garab geneen fanaan ci doo ko yëg wenn naaru góor wi mu tudde ko mëfër ñu ne ko mëfër lu mu wund mu ne rab wu aay la du wacc mukk mukk doom ji daw war na mëfër na mu pàndang pàndangi nag mu rëpptal dikk fa naa pir toog fa di fa jiite ba jiite fa ñaari at booba jàkk ji rekk ma fi nekk mu soog faa jóge nag jëm si mbaaw jaar fu naa jaayaan dikk nuyu kuy naa sëriñ jaayaan géey la sant ca xam ngeen ni géey ak sekk dañuy kalante keroog mi ngi war mëfër ci pénc ma la taxaw ñu bokk nuyoo mu ne ko yow foo jóge mu ne ko ci yàlla laa jóge ab jaamu yàlla laa bàyyi koo ci yàlla abdullah man jaamu yàlla dong laa mu ne ko nanga sant mu ne ko sekk mu ne ko noo tudd mu ne ko amaru ndaag sekk mu ne ko yow de téye naa la man géey laa sant maa di sëriñ jaayaan man ku bàyyi koo ci yàlla jëm ci yàlla duma ko bàyyi mu jàll téye ko na ci jaayaan ne ko foo jëmoon mu ne ko maa ngi jëmoon dëkk bu ñuy wax mbaaw waaye nag ginnaaw dikk naa fii ba téye nga ma fii laay toog di fi jaamu yàlla ndax man jaamu yàlla dong laa bëgg toog na jaayaan juróom-ñaari at soog faa gisee ay bokkam ci guddi na kat am na lu ma sonn borom ba xiirtal daal mooy dëkk bu ma sanc fii ci biir Bawol du ma génn réew mi keroog mu jógee jaayaan war fasa muy naa mëfër ànd ak gawar yu bari yoo xam ne boo demee dëkk buy naa canaba googu muy bëgg lim am na fa kër yu bari yoo xam ne diggante taaleen ak mérina ak sañ ak congoneen ak paaleen kër gu ci nekk rek gawar ba fa nekkoon dangaa àndoon ak moom sa jeexit ñoo fa des mu war a sa xaw amari ndaag jóg jëm fu ñu naa bawal di fekk ku ñu naa tenc yaasin booba tenc yaasin moo nekk bawal ñu di ko wooye buur bi ne bawal muy teeñ bi nga xamee ne jóge na jaayaan toppatu càmmoñam nag dëpp laa bi naaru góoram nag pàndang pàndang yi wuti foofu ñu naa bawol ba mu dikkee ba dugg xur woowu ci diggante xombal ak kees mooy sena ba mu fekk fi benn garab bu ñu naa sàmbam mu taxaw fa garab ga xool ko ba yàgg mu rëcc ci loxoom fóon xob ya yëkkati benn séemañ gor ko muy lang mu ne léegi maa ngi jàll waññu ko guma kenn xamut lu waral mu def loolu rëpptal naar góoram rek ñu topp ci ñu sikkar bii ñu sikkar ñu waa cene ba astaghfirullah alazim allasi laa ilaha illa huwa alxayul xayam ñi tontu fee laa ilaha illa allah waxal jàmme seydi bi fas yépp boo ko rëpptal
jërëjëf góor gi ma kuram mbuub balaa ngaa jekkali tur yàlla wu màgg woowu sax li ngay jot a xamal ci waa cana ba di sekkeen yooyu benn la ci kër sëriñ su ràññeeku si nekk ci Sénégambia ni ñu leen ko waxee woon ci suñuy waxtaan ne fas nu ñu yéene waxtaanee kër sëriñ si nekk ci Sénégambia ndax ni ngeen déggee ñu waxtaanee mbiri Cheikh El Hadj Omar Foutiou jàll ci mbiri Cheikh El Hadj Malick Sy ni ñu ko waxtaanee it ci waa kër Abdoulaye Niass Hadj Abdoulaye Niass fas nu ñu yéene waxtaanee tarixa muridiya ak kër sëriñ si nga xam ne ñoo nekk ci Sénégambia yépp góor gi ma koram boobu li nga ñu wax dégg nañu ko bu baax Dudu Jéego Jóob li nga ko laaj it dégg nañu ko bu baax bon nag dinañu ñaan bokk yi ñu muñ gannaaw boo xamee ne yaa ngi toll ci turu yàlla yàlla moo jëkk moo mujj bon nag li ci su kay sekk wax ak démba mbuub ne ala ko meng loolu moo di kun la yàlla wax ñu déglu leen
mokk na waaw ma ne ko kon ku li mu jàng mokk na
ana ko ne jonta baila jonta baila rabbana jonta baila
jërëjëf Demba Mbuub jërëjëf Sugay Sekk ci li ngeen wax ala ko meng jonta bàyyi la bu yàlla nekkun jaam du ko mën a teggi Eh, dëppoo naag wax yi góor gi Macoura Mbuub ci li mu wax ci waa Canaba ci bi nga xamee ne mu ngi toll ci tur yàlla woowu waaye du ñu def lu mooy nag dellu ci góor gi ci li mu ñoo nettali ci taarixi ñi nga xam ne waa Canaba lañu eh, di sekkeen fa seen dëkk cosaanoo ba ci jamono ji Macoura Mbuub
ba ñu demee ba dugg euh, làmbaay ñu fekk tenc yaasin toog ñu nuyu ko mu jox ko loxo ne ko na nga tudd mu ne ko ahmadu ndaag mu ne ko na nga sant mu ne ko sek mu ne ko lu ci indi ndaag gi mu ne ko ndaag sama ndey dafa dëkk njukki faal la sant ndaag faal moo dëkk njukki moo tax sama ndey sant faal waaye sama baay mi ngi sant sek mu ne ko haa yow yaay sama nijaay yow amari ndaag loolu tax a jóg mu ne ko damaa bëgg fu ma dëkk te yaay teeñ ci làmbaay te yaakaar naa ne yow loo am duma war a jafe mu ne ko li nga bëgg may naa la ko kaay sax na jaay li gën a gàtt ni nga tourné sow naaru góor nga tàmbale fii ci caapi booba bambay mooy caapi mu ne ko li ko tàmbale fii ci caapi ba kere ngi àgg jànqleen booba wa digg ñu naa kees gi mu ngi tudd jànqleen booba ay noonu ñoo fa nekk moo tax ñu naa jànqleen ba mu defee it ak laabi naaru góoram ja ne ko nag fi nga ma may ne ma may naa la fépp daa bari ca sori waaye nag am na fa ma jaaroon rek la ma fa goroon doy na ma waaye soo ma nee may naa li ko tàmbalee caabi ba jàng leen sab xol moo ci tol ndax sag baax ndax seen nijaay laa waaye nag dinaa ci def ak maandu dinaa delluwaat fa ma romboon am na fa ma fàkkoon fa laay toog di fa jaamu yàlla tourné wëlbati ko waat dox ànd ak gawar gu ñu sikar rek laa ilaha illallah waxal jàmm seydi bi fas yépp boo ko dox pandang pandang pandang pandang pandang ba mu dikkee nag ba ca garab ga la ne gaa yi fii de fii la ma sunu borom a dëkkaloo daal ne gaa yi góor leen ñu gor ko mu dippee ko senaba gi ma waxoon ca kajoor yaari senaba ngoog mooy cenaba cenaba gi nga xam ne nag moo ko ñetteel mooy cenaba gi ñuy wax cenaba gusaas mu dem gor ko booba kuy naa busin bu naa kumoon dofeen moo fa nekk ak kuy naa ardo ndapa paatara kuy naa semu kóor nduur ba mu demee mu nuyoo buur ba mu ne ko yow yaa di sëriñ cenaba mu ne yaa mu ne ko na nga tudd mu ne ko maa di Mamadou Aminata ndax sama bàyyi moo goron Cenaba gay tuddoo ko Cenaba léegi nag maay taawam bu góor maa di Mamadou Aminata maa fi nekk léegi ab àll laa bëgg gor àll ba sanc ko tuddee ko Cenaba mu tuddee ko Cenaba gi ci Bawol ak gee ca Kajoor mu di ñetti Cenaba ngoo Cenaba gu ne Cenaba la diggante Cenaba googu ak Gosaas juróom-ñaari kilomètre la def na fa it dëkk yoo xam dëkk bu ci nekk dafa teg nit ne ko defar fi jàkk di fi jaamu yàlla soo demee Kofé ay muxaddam dafaa nekk nga dem tawa mu def fa muxaddam buy jaamu yàlla mu dem jandeer def fa ab muxaddam dem fu ñu naa baanaan def fa ab muxaddam dem Mérina def fa ab muxaddam dem fu ñu naa waajur xule def fa ab muxaddam dem cabe def fa ab muxaddam ci biir gusaas mu teg fa yilimaan raatib ja dem ciise def fa ab muxaddam ñu ne dëkk ak moom nag bari nañu lool waaye fu ci ne kilifa fa nekk mu jëla jaamu yoo yàlla kooku mooy senaba gusaas mu di ñetti canaba am na canaba ko ñetteel it mu ngi ci diggante kees ak mbuur boo rombee ta seet mooy senaba xabaan fële kuy naa daawur jóob dëkk mu birambay fay kooku de mbokkum sëriñ canaba moo tax bi nga xamee ne Mamadou Aminata nekk na xalifa moom tam mu ñaan dem foofa ca xabaan def fa canaba am tuddee ko senaba mu di yedd senaba senaba génn ci siin ma kumba nag ka fa nekk ñu naa ko ma koo def sa sekk daal di wëlbati ko ma te su dee canaba am senaba mu di juróomi canaba canaba Seydou Makumba senaba la canaba Kajoor senaba la canaba Bawol senaba la canaba Gosaas senaba la canaba Xabaan ak senaba la mu tudde ko senaba yooyu loolu ma waral canaba yi amari ngoy ndaag moo nag e bokk na ci buur yi ci kër ndeyam bokk na itam ci jaamukati yàlla ci kër baayam ndax nit ku ne ñaari boor nga am na ñaari buur loolu ngoo xam ne mooy cosaane cenaba yi e ba mu amee ak léegi it danaa la wax date bi bi ñu xeexee Samba Sa ci 1875 la ñu sañ ci cenaba ci 1882 la ñu sañ ci cenaba xeex ba nag mi ngi jeexe ci Samba Sadio ci bésu alxemes waaye ba ñu laata xeex dañoo finc di takkusaani àllarba di 10 février lañu finc ca ngoon kenn ku ne wax la nga nar a def bu jant fenkee jàmbaar ji nekk ju xas ne bu subaa daal ku jëkk a dee man maa ko rey mbaa ku jëkk a dee mana ba jant fenkee di alxames la ñu ànd nag toog ci wetu fu ñu naa Samba Sadio boo demee ci fu ñu naa belal ca biir njaambur wàcc fu ñu naa njóobeen kër mu du aram jóom ne dem kër sëriñ àjjana jóob foofa la Samba Sadio nekk foofa la ñu xeex xeex ba xeex ba takkusaan la jeex ñu ngi ko tàmbali ci 7 heures ci suba sox yi takk sox yi takk ba 5 heures ci ngoon moo tax gone ci na bay sikkar ne takkusaani Samba Sadio maama leewu sere ba kooku mooy Samba Sadio fa la Samba Sadio jeex gawar bu nekk am foo jëm yaa ba xërimaam dem sañ ci fàndeen ma jël noor jub ñëw sow bi tafsir xiyaar moom ma nga dëkkoon waalo a waalo waalo bu mën a xeex la ca xam gi ne waalo waalo ko mën a xeex la dafa dem waalo kuy naa jibril maadu yi moom dafa dee ci xare ba ku ñuy wax omar waaj dem sañ ci maa dëngri yaa ba xërimaam sañ ci maa dëngri ah kooku sax ñooñu la boo xam ne bu sox ya masaa takk day yor ab leereem ne sox bu ñu fetal dagub dëgal dinaa ko ñëwaat ci kaw nga war ga bu ñu dajjee bañ te dinaa ko daajaat cam ñeeño laa moo tax ca kanam rek la daa nekk ñi di ko xool ku yàqule bala ngaa wàcc rek dina ko defaraat nga waraat ci tutee it mu jël fetalam di fetal waaw seen diine ji nag fu ñu ko jële
waaw diine ji ñu ngi ko jëlee ci ku ñu naa Amadou Seexu Maadiyu ndax danga naa ana sëriñ Cene bi fi nekkoon ba jóge fi bëkk dem ñu naa ko Ibrahima ana fan la jële tariixam nga ne xanaa ci bàyyam buñ naa Muhammadu Aminata moo nga ñu rob cene ba nga ne Muhammadu Aminata fu mu jëlee salaatul fatihaam nga ne xanaa ci bàyyam amari ngooy ndaak la jële ci moom werdi salaatul fatiha ndax mook sew xaama du ñu àddoon nga ne waaw amari ngooy ndaak moomu nag ana fan la jële werdam nga ne xanaa ci Seexu Amadu Maadiyu nga ne Seexu Amadu Maadiyu ana fan la jële tariixam nga ne xanaa kuñ naa sidna limal maadiyu sidna limal maadiyu jële ko ci sidna abdul karim benn sërifu dawaliya sidna abdul karim jële ko ci sidna marut fall mu jële ko ci muhammad al abbas mu jële ko ci seexna ahmad tiijaan mu di tippee ko ci yonante bi rek foofu la tareexa ca na ba jóge waaye nag ba ñu fa laatee jële tareexa it dañoo ànd ak moom di xeex ngir yàlla xeex bu yàgg yàgg ànd nañu fukki at ak benn yoo xam ne ñoo ànd guddi ak bëccëg di xeex ñoom seen tariixa fi ñu ko jëlee ki ko joxe bala sant ñu naa ko Sidina Seexu Ahmadu bàyyam tudd Limal Maadiyu dëkk ci Wura Maadiyu département Podor arrondissement Ndioum.
jërëjëfati góor gi ma Koura Mboup rawatina Dudu Jéego Jóob ci laajte bu rafet bi nga laaj góor gi ma Koura Mboup mu tontu lay tontu bu rafet boobu ci mbiri taarixi Canaba Canabay fi ma ko jëlee sore na bu baax ndax ca Cheikh Seydi Ahmed Tijane radiallahu taala anhu moo tax ma ne tarixa bokk na ci li nga xam ne jokkale na it Sénégambia ndax kër sëriñ suñu laal rek dina dolli indi Sénégambia ndax bi ñu waxtaanee mbiri Cheikh Seydi Hadj Omar Foutiou ci ñi nga xam ne ñoo jokkoo ci moom nekk fii ci Gambia ak ña nekk ca Sénégal kër Cheikh Seydi Hadj Malick Sy noonu kër góor gi Hadj Abdoulaye Niass be ci canaba canaba yi sant sekk ni ko góor gi Makoura Mboup indee fi la ñu ci yem ak yéen nag di leen dellu gërëm ci déglu gi rawatina Ibrahima Mbeng Alioune Cissé Dudu Jéego Jóob ñi ñu dimbale ci sunu liggéey ca ba ñu demee Sénégal ci liggéey bu fa Caam Juuf def ak Cheikhou Diallo di teexale koog yéen fii ba beneen talaata ci waxtu wi cosaan yi Sénégambia la ñu leen doon digtal di xalaati rajo Sénégal ak rajo Gambia ngeen di ko dégg talaata bu nekk ci waxtu wi ki leen ko doon digtal di Mansour Ndiaye jërë ngeen jëf.
sunu bokk yi Sénégambia ci sunu waxtaani gëstu cosaani Sénégambia tey ki ñu tànn di waxtaan ak moom di Jébel Sàmb euh, bokk na ci ndaanaani waxkat yi ci rajo Gambia Euh, Jébel balaa ñu sóobu ci sunu waxtaan ndax tey li ñoo tànn dëgg-dëgg euh, moo di Saalum Saalum it fi ñu ci tànn moo di këwoon loolu lañu laa laaj tey waaye lu jiitu laaj gi eh, ban eh, doole nga am ci nettali cosaan ak it foo ko jëlee dëgg-dëgg jëbel ah jërëjëf Sora li ma ne nii tey di ko def dama fekkoon suma maam yi di ko def ngir seeni bisin suma maam ki nga xam ne kii moo meññ suñu askan nga xam ne ngéwél rek moo doon liggéeyam moom ak mbabb birama kodd ñu ànd ñëw ci réew mi sañc dëkk bu ñu wax bumbu ni soo fa demee di nga fa gis guy goo xam ne gii doomam lañu ko tuddee ñu di ko wax guy maa ci lóor te bumbu ne soriwul seeni bisin mooma moo jur ma maaj culóor moo jur sambaardo moo julaat saan buntung ma ca yuna moo jur ma paate ma ca ngay moo jur muri ma ca ceenan moo jur ma kumba kenguy ma ca guy lingéer moo jur mbaxar yaasin kura mbaxar yaasin kura ak faafa yaasin kura ak ma kodd yaasin kura ñii ñëpp géwél lañ amul kenn koo xam ne kii mun na ci liggéey dara te du woyaan seeni bisin bu daan dem taawam yi la daan àndal ak jabaram yi su wàccee ci sabax sa njaal sabax may ko réew ma yépp dajale réew ma mu may ko ci farang mu ñibbi doo woyaanati ba déwén mu dem farang ci farang sabax farang sabax may ko ñu may ko réew ma yépp may ko mu ñibbi bu mu ne du woyaanati ba déwén mu dem ci barsaalum dégg loolu bu ñoo wax barsaalum bale ndaw ndukkumaan la dégg ne dégg naa am na benn géwél boo xam ne bii buur yi rek la topp li ko daree buur ba jolof bëlëm ndukkumaan bu mu màndaax bu mu keccewaan yii yépp fu mu dem dinañ ko teral te buñ ko mayee réew ma yépp dinañ ko may waaye su ma ganesee dinaa ko may loo xam ne lii du màggatati mukk soo maam seeni bisin dégg ko dal di wari fasam ànd ak taawam yi wàcc kere ba mu ñëwee wëy taxaw ca bunti kër ga wëy biram xureeja ma ca njoob saane ne ndaw biram xureeja njoob la waloo saane ne ndaw taawam yépp dal di bokk aw mu téye ko nag toobaan ko àll ca ne ma niiru bëllëb la bay doole àll di bëllëb jegaan doole di bëllëb tomin jegaan di bëllëb yum gàddaay di bëllëb ministre demba di bëllëb tamba di bëllëb jagin tamba di bëllëb fari coro jegaan mi ci wulli manque daado mu deyaal wellu yaa doonu gangaan yu bari gangaan njaay ndaw waal kóori gangaan jimbi topp sàmba xoreje sa baay sàmba xoreje biram ñéemee no gis fari yow a jóob ndee na njaay muroon mu ne ko wàccal sa naari góor yi ak sa taaw yi mu wàcc naari góoram yi ak taawam yi mu may ko sango sango mooy jooraan nga ñoo tibb may na ko dooy buur yépp mer ne ko lu tax nga def loolu mu ne woy na ma woy bu ma kenn mus la woy naa ko may lu kenn mus la may mu bàyyi fa mbax yaasin kure suma maam ku tibb ca xorom soosale fay jaam mbaa wajan
fan foofu moo laa- di sango sango mu ngi ca kawoon soo demee kawlax jooraan foofu foofu foofu foofu ay sango léegi lañu ko tuddee jooraan foofu la foofu la xorom sa newoon xoromi buur la daan doon kenn du ko laal may nañ ko suma maam mbaxar yaasin kura may nañ ko sango ku ci tibb fay ko jaam mbaa wajan mu def fa mbaxar yaasin kura suma maam seen bisin lañ ko mayal jëbel war ngeen a jëli sango
waaye booba booba booba tubaab yi ñëwanguñ loolu moo waraloon waaye fi mu ne nii tubaab yi ñëwangu moom nag sàngo nag léegi loolu mooy moo jur seeni atta maa culóor mu jur seeni atta mu jur Samba Jaw mu jur ma maa culóor dafa daan woyaan seeni atta dafa daan woyaan moom kera ba mu gisee Sëriñ Bamba kera la tuub ne dootul woyaan sëñ Touba sëñ Tuuba loolu Sylvinus moo ko ko wax ne ko seeni mu ne ko naam mu ne ko di nga gis benn wa benn benn nit ci xarfu jant ñu di wax Mahamadul Bamba mu ne ko waliyu kaamil boobu sa sëriñ la kere ba mu ko gisee kere la doon murit boobu la sëñ Bamba jógee ca géej géej ñëw ba mu ñëwee ñibbisi dugg ci wuti façon bi la ne ak néegam bi dajale ced ceddo yépp ci sànjal ne leen seeni ku am loo maa may so eboo nga may ma waaye du ma taxawati ci bunti kër di woyaan man gis naa sëriñ bu mut sëriñ mu jur Samba Jaw muy ndaanaan mu jur ma
waaw ci kan nga tibbee ci Samba Jaw suma baay moo ma jàngal li nga xam ne li leen moom laay wax ni
jërëjëf jëbel sàmb bon nag ci gëstu wàlli cosaani Sénégambia ñu dal ci Saalum tànn ci pays bu mag ci jamono jooja ñu xamee ko kawoon foofu la ñu bugg a dalee waxtaan wi tey lan moo ko indi ak ñan ñoo fa nekkoon di ay pal ca jamono joojale ak yan doole la ñu ràngoo woon jëbe sàmb
ah kawoon ki nga xam ne moo ñëwatina la waaye li indi nag baat ba nag mooy bi loolu di laata am kawoon di am saalum di am boobu saalum tudd doon saalum mbéy la tuddoon dañ daan wax ne maada mbéy ne maada si saalum amangul yebe kamaali jóge mandi ñëw moom réew mi parce que jamono boobu maxasu njata dafa moom àddina bi yebe kamaali jóge mandi ñëw kawoon ne fa di buur ànd ak ay nitam ak ci dagam ba mu nee foofale buur fule yemen kemaali dee buur fule ñëw toog gannaaw buur fule njaga depparu gannaaw njaga depparu xayma nga bannaa moom nga dégg mag ñi daan ko wéyal xayma nga gannaaw ñu ne guy guree gi ñëwati na xayma nga bannaa moomu le moom la yëli bannaa lam tooro jóge ngisiri ca fuuta ñëw fekk ko ci réew mi rey ko dal di falu toog ci jal bi mbegaan itam ñëw nag jóge saalum jóge ne ne ci saalum jóge siin ca waagaan nijaay ja dugg ci àll bi di rëbb ba gis ko ñëw wax ko nijaay ji mu ne ko kooku day boo ko toppee di nga am nguur fekk tuur yi wax nañu ko xamul naka laay def mu oo jigéen ba me nge nduur ne ko da nga ragal waaye yow am nga sëriñ si yoo xam ne yile mat nañu sëriñ parce que boobu mbegaan dox na ba gis Malick Dramé mu ngi ko jëlee Bakel ak Bakka Saaxo ñi ñoo doon ay sëriñam ak Ngoyoon Saar ak ku ñu wax Ile yàlla di kenn ku ci ne xam na ne dina moom dara mu ne Ngoyoon Saar su ma demee yow dinaa la def jaraaf ju rëy lu maa dogalati yow yaa ko dogal ne ila ila yàlla di yow dinaa la def ardo ne Malick Dramé yow dinaa la def élimaan bakka saaxo mun a ko amun a ko yaama neel ci der bi ñu ñëpp kenn ku ci ne mu jox la place ci kawoon ñu ne fa ne fa ne fa ne fa ne fa ba sëriñ si duggee xalwa ba génnee ne ko ñun kat li ñu gis yow kii li ko war a rey yow rek yaa ko war a def te am nga xam-xamam mu ne naka laay def ñu ne ko ñun duñ la ko wax yow yow am war a nga am xam-xamam boobu la gis nag jigéen bi mbengi nuur ne ko nañu def pexe mu ne ko nooy def pexe mu ne ko dinaa subale ku jaan bu yeli bannaa lam tooro di julli ji ci jàkk ji su duggee ci biir jàkk ji dàllam ba dinaa ca dugg suppaleku jaan su ma subalikoo jaan mu ne ko waaw mu ne ko yow ci sa bopp na nga subaliku muus boo subalikoo muus mu ne ko waaw mu ne ko nag ma ŋànk jigéen ba dal di ko wax loolu soppaleku jaan dem dugg ca biir dàll wa tëdd di ko nekk bi nga xamee ne bii julli nañu fajar ba jóg mu ne mu ngee génn rek muus mi dal di jàpp mu dal di dugal tànk bi ci biir dàll bi rek jaan bi màtt ko mu wiccax dàll bi mu dem jaan ja dal di génn rek ñu ne jaana nga ñu ne jaana nga muus mi dal di ñëw ngànk ko rek dem yëli baanaalam tooro nekk ci dangar ja yéeg ko nag dangar ja yéeg ko ba ñoo laata wax ne tisbaar jot na rek mu dal di dee ñu fab ko yóbbu ko jama ceebi fa lañ ko suul mooy jama jama jama ceebi mu nga ca boori ngan na ca paka la màndax foofu la ñu yóbbu ko foofu bàyyi ko fa mbegaan nekk ci lal bi nag di tëbu te boobu nijaay ji mu ngi siin waagaan bi nga xamee ne bii nijaay ji dee na nag te siin jarbaat mooy donn mu dal di dàmbale ñaari réew yi su julli jotee julli korite mu jullee ko saalum bu julli tabaski jotee mu dal di ko jullee ji siin ba mbegaan wàllam jeex fekk na am na benn sëriñ boo xam ne bii mu ngee ñëw moom te jëbel ma dog la tuuti yàlla bu la yàlla dog moom mbegaan nduur dañu njott ne ceddo la woon lu tax mu doon julli noonu
du daan du daan julli julli ceddo soo ko déggee dañoo mbumbaay yi dañ ne buur bi julli si na ñu dal di def nag mbumbaay mi rey nag yi toggoo lekkoo loolu lañu daan jullee waaye du dangaa taxaw nag di julli tang boobu ñoom ceddo lañu kenn ku ci ne ceddo la waaye boobu mbéy la réew mi tuddoon tuddoon boobu saalum ñëwagul saalum soirée dal di jóge penku dal di ñëw fekk ko fa dañ ne falu na waaye moom faluwul moom waliyu la saalum soirée du ceddo ba mu ñëwee mu dal di toog ci lal bi ne ko dama la gànn si dama la seet si te dama dégg sa tur ma ñëw seet si la mu dal di ko oo teral ko waxtaan ak moom ne ko léegi nag li ma bëggoon mu ne ko nag ma liggéeyal réew mi mu ne ko réew mi de loo ma jox dinaa la ko liggéeyal waaye li ma bëggoon ci réew mi mu ne ko waaw mu ne ko nga tuddee ma ko soo ma tuddee réew mi mu ne ko waaw mu ne ko benn buur du ko toj buur bu ko toj bu musa toj saalum saalum delluwaat na ca fam newoon benn buur musu koo toj buur bu musa ñëw saalum soo ko tojee saalum delluwaat fam newoon nit ñuy dee ba jeex rek yow nga dem mu ne ko ah mu ne ko waaw mu liggéeyal ko ñaanal ko bind saafara jox ko ne ko tuur ko ci ñax mu bari mu tuur ko ci ñax mu bari boobu réew mi bareengul dëkk amangul barewul noonu noonu mu taal réew ma mu dal di taal nag ñax ma ba mu taalee ñax ma safara sa tàkk def juróom-ñetti but loolu mooy ngal yi fi newoon nga xam ne frontières yi yi fi yi fi mbegaan defoon bile but di tàkk ba sal si ñaa nga bantal nga mën a am nag oppa saalum ak leewa saalum ci biir angale bala bi la di tàkk ba bunti ferlo ca jolof
te jëbel ma leeral foofu nga ne ci jamono angale bi nga am oppa saalum loolu ci angale mooy saalum ca kaw saalum ca kaw saalum ci suuf lu wa saalum saalum ci suuf waaw saalum ca kaw la saalum ci suuf waaye boo xam nga boo ñëwee fii soo ne saalum saalum dañu defe ne benn boor la déedéet fii ci saalum la oppa saalum saalum la lewa saalum saalum la saalum kook saalum suuf la te yooyu yëpp ci biir saalum la te boobu tubaab bi ñëwagul de frontière amagul sala si ñaa nga bantang moo doon frontière bi xuru mbaay mbaay déem ak farapaaba bobol ba ca siin kadd bàlloo ji guy saande ku nga amina biraan ci bànjul boobu benn frontière amul nit ñi di demante nag di dikkante mbegaan nag nguuram dal di jeex mu dal di mu da- bi ngu- bi nguuram jeexee mu xam ne nag léegi nguuram jeex na parce que moom dafa jékkee-jékki rek kenn gisatu ko dafa disappear duñ la wax ne fii la ñu suul fii la fii la ñu suul mbegaan
Jibril Sàmm yaa ngi ñoo nettali ne buur bu mag boobu di Mbégane Ndour eh, gisuñu bàmmeelam eh, ndax amuñ ci benn firnde benn tegtal
ah historien yi wax yëpp day dañ ne amuñu am gisuñu bàmmeelam dafa dem waaye daal xam naa ne am na it ñu wax ne dañ ko njongolooru lañ ko suul mbegaan nag moom mi nga xam ne bii moo moomoon réew mi li taxoon nit ñu mu tuddee réew mi saalum soirée loolu jotuñ ci woon a egg ci biir waxtaan saalum soirée ba mu ko liggéeyalee ba mu def loolu le ba ngal yi am saalum dafa tuddee saalum soirée réew mi saalum soirée dal di fa jógee dugg àll moom it ñëw di dox ba soirée kundaa soirée kundaa mu ngi fii ci badiw mu sanc soirée kundaa fa la bàmmeelam ba ne ñu di ko siyaare soirée kundaa fii ci Gambia bàmmeelam baa ngi fa ñu di ko siyaare bi loolu amee nag mbegaan wàllam jeex ñu dal di falaat beneen buur bu ñu wax ama gile nub xab ba kooka saaye léyti menge la ñu ca teg ba kooku saaye sambala buree ci tegu ba kooku ba saaye seeni njéeme ci tegu ba kooku saaye lat kiloor bajaana ci tegu ba kooku saaye malawtaan kot njaaye ci tegu ba kooku saaye sambala buri juufa ci tegu bi kooku taaye ca- eh, saaye biram ñéeme ñaxana biram ñéeme biram ñéeme kumba njaay yëkk wa daldi ci tegu neena ñe- neena njaay maroon door a tegu man jëleen njaay waali door a tegu wal joojo njaay ama koddu faal ama koddu juuf sengaan kewe kumba lat culóor biige ndeene ndeene koddu biige sengaan jogob ndeene jogob makumba jogob ñii daldi falu saa ne ne kot faal dooru ñëw biram ñéeme ñaxana ñëw makumba jogob ndaw koddu biige ndeena xoroja ñaxana Malick Njaay kooku moom benn at la ci am Bale Nduur Balaram Bakar bu ba ba Saalum Bale daw Balaram Bakar Kumba Ndaama Sambalaw be Faal Faxa Ñaawut Saajuka Gedal door a ñëw ci lal bi geral barsaalum geral nag moom la fi tubaab yi fekk gannaaw barsaalum geral nag ñi nga xam ne ñi le ñoo nekk ci lal bi barsaalum bedal ba mu jotee ci lal bi jógee ca barsaalum see mu jimit a ko remplacé barsaalum see mu jimit ba mu ci jógee gori gori barsaalum gori ko remplacé ba mu fa jógee barsaalum dee ne jogob ba mu fa jógee barsaalum fóode ñii ñooy barsaalum ñi nga xam ne yile ñu am ci kawoon man soo
Jebel Samba kawoon pays bu yàgg la pays bu mag la eh, boo xam ne bii ay buur rekk fa mas di nekk Eh, wax nañu nag ne bër saalum yi dañu daan tëggoo junjum Eh, loolu naka la demee
li tax ñuy tëggoo junjum bi mbegaan leneen ci lal bi dafa am benn waay joo xam ne ji la dafa jógee màndi ànd ak ay xajam foor junjungam bu duggee moom rëbb la woon nag di rëbb ci biir àll bi di dikk di rëbb ci biir àll bi di dikk àll bu mu dugg rek boo xamee ne bii xaj yi tasaaroo nañ ba xaj bu jinee jàpp dara su ko defee bu tegee junjung ji xaj yi yépp dinañu ñëw fekk ci ko junjung joojale nag bi mu ñëwee mu gis ko moom mbegaan ne ko lii ndënd mi ndëndi buur la léegi dama bëggoon nga jaay ma bundi nga jaay ma ndënd mi wala ndënd mi nga di ma ko tëgal wala nga fooral ma ndënd mu mel noonu la mu fooral ko nag ndënd mu mel noonu ñu daldi ko def ak der mu amee ñaari dë- dënd yi olof ñoo ne junjung waaye dundung la tudd dundung dundungoo
kon nag ñu ne làkk soose la daal làkki soose la soose moo wax dundung dundungoo la wax waxul junjung de dundung moo tax mu am ñaari poot mbegaana ko njëkk a tëggoo
waaye waaye joojale ko indi woon ak i xajam euh, xamuñu turam waa ji nga xam ne jële moo ko indi ak xa- ak xaj yi kooku laa ne moo ne moo tudd kuyang keeta kuyang keeta la tudd keeta la sant manding la jógee cam pen parce que junjung fi mu xam ne fi la fi la format commencé fa mooy kaaba manding su njata lañ ko daan tëggal te foofu la jëlee junjung ja nag foofu lañ ko daan fooree mu amee junjung jooju la di ko tëggoo di ko tëggale di ko tëggoo ci biir àll bi su ko xaj yi réeree mu tëgg junjung yi bu ko xaj yi déggee rek dal di ñëw dajaloo ci kanamam loolu moo tax ñu ne dundung soo demee ban tey manding dundung yooyu la ñu nga fa manding la jógee du dundendi réew mi
loolu mbegaan dal di ko jël di ko tëggoo nag mbagaan jël ko nag ñu foor ko ay yu bari mu jox ko nitam ñi ñu di ko ko tëggal waaye benn galan lañ koo tëggee nag benn loxo rek junjung benn loxo lañ koo tëggee ban tey tëggi woowale mu gisoon rëbb ba di ko tëggee noonu lañ koo tëggee benn pot la am comme tama lañu ko fooree ni ñu fooree tama moom la ñu fooree fooree junjung junjung tama ci moom la génne loolu mbegaan moo moom junjung yooyu la
Eh, bër saalum yi mbegaan daal siiw na ci bu baax xam naa ne am na bër saalum yeneen yoo xam ne siiw nañu waaye eh, ma di la laaj bokk eh, dooley bër saalum ca jamono joojale ak bër saalum yi nga xamit nga nettali ñu seen i jaloore ak ni ñu jokkoo ci Sénégal bi
ah ci li nga wax barsaalum yi kenn ku ne sa jamono di nga ci am doole parce que barsaalum bu musa falu da ngay fal nit barsaalum bu musa falu na fal bëlëm du kumaan barsaalum bu musa falu di nga fal bu mi màndaax barsaalum bu musa falu di nga fal bu mi kajmoor bu mi këcëwaat bu mi bóofi yii yépp fal la yoo xam ne yile barsaalum daf ko daan fal bu mu màndaax nag moo ci gënoon di am doole ak bëlëb bëlëb nag moom buur du daan fetal mukk te bëlëb waru su bëlëb su buur musaana toog ci lal bi ci kawoon dafa oote ndax ndombo tànk yi ñëw nañ ñu ne ñëw nañ la ko dal solo si ñaa nga bantal bunti ferlo xuru mbaay mbaay déem ak fara papa bobal ba ca siin kadd balloo ji guy saane ko nga amina biraat ñi ñëpp dinañu wallu si su ne ana bëlëm ndukumaan ñu ne ko ñëwangul mu ne xaara ba mu ñëw su bëlëm ñëwee ñu tëgg dënd yi oo sëriñ njigi mu dal di léemu xare yi bu léemoo xare bi ñu damm ñu damm galan ba teg ko ci dë- dënd mi mu war ba saalum door a fete balaa fete rek ba saalum bëlëm ndukumaan a ñëw
ya noonu lañ daan léemoo xare yi lu jiitu- noonu lañ daan léemoo xare dañ daan am sëriñ boo xam ne bii day léemu xare bi su léemoo xare bi ba yegal ñaanal xare bi bàyyi xare bi nag ñu mu door a dem parce que loo gis léemaay daf ca baax
jërëjëf Jëbel Sàmba kon nag ci sunu waxtaan yi cosaan yi Sénégambia ci li ñu la ci doon laaj dinañu ko yemale fii Jëbel Sàmba gannaaw bu ñu dellusee ci waxtaan wi ca fa ñu ko bàyyi woon moo doon bi nga ma doon nettali xare yi bu ñu ko daan tàmbali eh, ni ñu ko daan léemoo foofu la ñu ko bàyyi woon
xare boo gis am na sëriñ boo xam ne bii moom lañu teg xare ba ci loxoom balaa soxee tàkk dina leen wax fan lañu war a jaar parce que doo jóg a jóg rek jiital jiital sa bopp rek ne yaa ngee dem déedéet buur njëkkee dañoo xam rawaan yi fan lañu ne su ñu nee xarfu ñu boot rawaan yi dem suñu nee penku ñu boot rawaan yi dem buuri xare dafa daan boot rawaan rawaan nag loolu moom su fekkee ne ca bu njëkk ba ba nga xamee ne bi leen nit ñi xam ba- bàyyi nañ ko xel te di koy bàyyi xel bu baax a baax a baax di ko jëf di ko jëfee boo joxanteeg moom kanam loo uti doo ko am boo xarajee dinañ la dàq
te jébel loolu moo wane ne daal cosaan lu am doole la ak it nit lu moo defati daal na ko wàcc ndax wolof dafa dafa jeexal wax ne lañ lañ ca songoo daal du daan
jërëjëf jërëjëf Mansour li ma ni ma la ko waxee nag noonu la mel noonu la demee li waral nag ñu toppaan Sénégambia diggante Gambia ak anglais mooy nit ñi ay bokk lañ suuf si benn la woon réew mi ba mu amul frontière fu la neex nga dem bi tubaab bi ñëwee la ko xaaj li ma la li la wax loolu la biram ñemel jégg ba ca manji xaar buur ba jolof moo doon baayam moo jógee jolof ñëw ci réew mi ma njamboor la sambaloo ma njamboor la binni kuri saara ak saabur ak la demba ak jëleen paate jëleen baay sàmbari jëleen bumi la ñu mat ca sanku ya la demba tend ba jaan bumi la ñu mat ca jigimaar la demba fokk jow mi ngi cuuruur ak mi ngi yuxum ak kumba diba mi ngi cuuruur yaay saabur menge ak jëleen menge ak kaasa menge kaasa mengaa ñëw badin ci Gambia suñ la ne badi bu nag mooy rip moom it tudd doon rip waa talaa lañ ko daan ooye soo déggee nag ñu ne rip boobu xotti na li ko dalee duta jubaa ba kam bi jaasi kolong dox na ba fi nga fi ngaa demee pate bajaan ca xur woowale foofu la sa foofu la rip emoon buur buur rip ko daan moom te Iliyaasa la daan toog wala yindiya wala jaajar wala jumañ saar wala kubandaar
te jébel di nga leeral lan moo di waa tala ak it duuta juuba kambi jaasi kolong lu yëpp di nga ñu wax moo di lan kam bi jaasi kolong mooy mini mini yang la ne boo demee ba miniyam boo di saabaa foofu la buur ama juuf daan takk naari góoram yi ñuy naan teen la moo la ñuy wax kam bi jaasi kolong soo demee ba nga xam ne passé nga farafeñe tan ba nga gis mu xotti nga dugg na ci biir frontière ba nga xam ne soo dogee ñaari ñaari tànk rek nga dugg yaa ngi dem nag dëkk ba ñuy wax sànkalan xotti xotti wóobale mooy kam bi jaasi kolong foofa fi nga amee nag dex gi mu dal di dog ci bolong bu mag bi dem uti géej gi ni géej yi ñu di daan napp géej yi foofa dañ daan kooje looloo tax ñu ne duuta juubaa dafa amoon nag màngo gu mag goo xam ne gile mu nga foon su nappkat yi nappee ba pare fa la ñu daan toog di séddale seen jën yi duuta duuta juubaa bu la ko soose waxee mooy taati garab yi màngo gu mag fu ñu daan toog bu ñu nappee ba pare toog fa nag di xaaj seen jën yi looloo waral ñu ne duuta juubaa soo déggee nag ñu ne badibu baading buŋoo la ñu wax néegi mbokk mi mbokk yi ñun ñun ñun ñi nga xam ne ñooy mbokk suñu néeg bi te loolu moom nga ma won won naa la won ci biir waxtaanel noonu la Sénégambia def ñun ñëpp dañu bokk bokk benn néeg te néeg bi mooy lan mooy suuf si nit ñi nag moo laa mun a won ne ñoo euh, nit ñi rek moo laa mun a won point bi ne ñii ñoo bokk rip ñu du ko tax rip rip buñ la ko déggee da- da- dañu jaxasoo soosee ngi fi olof a nga fi pël a ngi fi olof yi nag dal di soppali tur yi ñu ne rip
daf ni ripp daal waaw daf ne rip ñépp a fa ne
Eh, lu jiitu ripp nag waa talaa nga waxoon waa talaa nag mooy dëkk bi nga xam ne fi la nguur gi doon ne mooy Iliyaasa moom lañ ko tuddee woon waaye bi waa talaa daan laata ñëw nag Soora Musaa ko wundu boobu kandi bufuti ak kandi bafata ñoom ñu ngi ci réew mi nga xam ne yooyu ñoo ko wax ne ko nii la fi tee yaakele si taasi la baabaa kookoo la soo buggee def sa ré sa dëkk jàllal salasi nga dem ca gannaaw salasa def sa dëkk ba mu ñëwee nag fii mu ne ngañ yaake jan ñu ne Ilias fii laa def suma kër fii laa dëkk boobu may si ñeeliñ ji mu ngi ci lal bi ci jumañ saar waaye boobu boobu tàng yàgg na de boobu ci jamono mbegaan la li ma laa wax nii ban tey génnagu la ci moom de ci jamono mbegaan la de
jëmbel ma ñëw nga ne Sora Moussa buur bu mag boobu bàyyee ko woon defe naa man di nga wax waaw ñëw fekk kànni bufuti ak kànni bafata ñooñu xanaa ay jinne lañu woon seen tur yi ñooñu ay jinne lañu ñu nga kandi kundaa ñoo moom kandi kandi kundaa kandi bu futi la ak kandi bafat ba mu toogee boobu bambara la mu ne nga duxoo tomboŋ moom Sora waaw ñaari jinne yi génn ci ñaari wan yi ne ko yee ju duwoo tomboŋ ana amaar yi for nga réew ak borom ba mu ne leen ah yéen yéen a moom réew mi ñu ne ko ñun ñooy moom réew mi ban tey léegi ba léegi ba léegi soo demee lu ñu bind la loo xam ne ñu ngi ko def ci carnet bind ko bàyyi ko Ilias mu nga fa ñu ne ko soo buggee dëkk jàllal salasi nga door a def sa dëkk boo fekk na may sa ñeelin ji mu nga jumañ saar di buur bu jigéen te boobu mbegaan a ngi ci lal bi nguuri